juddoo Mauritanie. wa qiyaadatum fi Mauritanie. nee na ñoom ñaar même suñu juddoowul fii lu ëpp ci seen doole fii la nekk Mauritanie seen reen fii la nekk. wala huwa tajaddurhum. nee na loolu lu muy wax nag mooy tariqa al qadiriya ak tariqa al qalbiya. wa nqul an tariqa al qadiriya. nee na lu muy wax ci tariqa qadiriya. شيء كامل وعدل فيها لا نمشي دف ما هو في موريتاني تدو شي موريتاني مصيبة خاصة النمجات بلي بارتيكلير ما النمجات عنه لا لاقي nee na dafa mel ni rek loolu am na lu li ci manqué wala dafa mel ni dafa niu ndax Mauritanie moom mooy masdar bi moom mooy cosaan bi moom mooy origine bi Sénégal nee na Sénégal نسلم على فخامة الرئيس نانا مونغي نيو سون اكسلانس مسيو لو بريزيدان ماكي سال دا لا ريبوبليك ماكي سال حكومته وشعبه الغوفرنمون مع البوبولاسيون سينيغاليب وهي بل اكثر تلاميذ شيخنا الشيخ سعد نانا فوفو مو اب تالي بشيخنا الشيخ سعد في غرب افريقيا ci ci ci Afrique bi yëpp. dellu si waaw Sénégal. nee na plus particulièrement Sénégal. salmina ala mashayikh Cheikhna Cheikh Saad Bou. nee na mu ngi nuyu cheikh yëpp yu Cheikhna Cheikh Saad Bou tous les foyers religieux yu Cheikhna Cheikh Saad Bou. defar ak nee na magu taalibe yëpp. ru'asa dawaayir. ak président daayira yëpp. salmina ala turuq suufiya bihim. nee na mu ngi nuyu tamit sunu naataangoo mbokk tariqa yu fa nekk ci yoonu tasawuf. muritiyya nee na mu ngi nuyu tariqa murit. ala ra'sa xalifatihum. ak nga xamante ni ku ko jiite mooy seen xalifa Cheikh Mountakha. الطريقه التجاريه بطرق ak sacrifice yu mu def وحده الوطن pour liggéeyal réew bi والشعب ak liggéeyal population bi وساعاته ak liggéeyal territoire bi ak sécurité yi lépp والنهوض به ak jugal réew bi اجتماعيا euh, واقتصاديا ci côté social et le côté économique والسلم الأهلي ak la paix di intérieur. kadalika. nee na ginnaaw loolu. nusallimu ala aamati mashaayix. mu ngi nuyu sëriñu kilifa diine yëpp. diiniya. nee na mu ngi nuyu sëriñ yëpp kilifa diine yëpp. turuq suufiya. ak bépp yoonu tasawuf. wa xaasatan. nee na plus particulièrement. atariqa alqaadiriya. muy tariqa qaadiriya nga xamante ne mooy umu turuq di ndeyu tariqa yi. mashaayixha. ak sëriñam yëpp. wa atbaa'iha. ak ñëpp ñu leen topp seen i taalibeeg cheikh yi ci nekk xaasatan usrat ali cheikh na cheikh Mouhamed Fadel Mamin nee na rawatina ak waa kër cheikh na cheikh Mouhamed Fadel wul Mamin wul Mamin wax nañ ñooy cosaanu mbir bi ali cheikh na cheikh Saad Bou ak la famille de cheikh na cheikh Saad Bou wasilatul kubra jami xulafa cheikh na cheikh Saad Bou bi ak bépp xalifa bu cheikh na cheikh Saad Bou Mauritania wa Sénégal wa duwal mujawira ci Sénégal ak Mauritanie ak réew yu nu ngër ñëpp nu cheikh na cheikh Saad Bou cheikh wa kadalika tariqa al qadwiya moo ngi nuyu tariqa bu ñuy wax tariqa qadwiya هي والطريقة القادرية nee na moom ak tariqa qadriya ذاك اللي يربطهم nee na lu leen boole من التصوف ci yoonu